maanaam li ñu poussé ñu organiser 72 heures de consultation lenn rek la parce que ñëpp xam na ne Sénégal faju dafay xaw a sooxe rawatina boo dëkkee ci village yi parce que parfois boo dëkkee village doo am moyen wala tamit pour nga jógee sa village di daw lu mat ay 100 kilomètres pour dem Dakar wala Thiès parfois dafay poser problème loolu moo tax ñu ne ah comme ñun nekk ay ndaw tënku ci ñaari association benn bi mu ngi Sénégal beneen bi ñu ngi fële bitim réew moom tax ñu noo ñun nañu boole suñu doole fexe ba dimbali suñu gox dimbali leen ci faju parce que tey boo xoolee faju bi bàyyiwul xale bàyyiwul mag bàyyiwul jigan domaine yu bëri moom lan laal cest à loolu rek moo nu motivé woon bañ ne même sax bu fekkee dafay jar ñu débloqué suñu propre xaalis lañ koy def entre temps ci lan daje ak waa ASCODO ñoom tamit ñu ñëw dimbale nu ba tey ñu taxawal fi lu mel nii parce que li yombul garab yi mi ngi fi lépp ngi fi quoi personnel soignant bi aussi xam ñëpp ngi fi. état li ñu defal mooy fii ñu taxaw tey di wax école bii nii te tey sax damay profité pour lancer waale benn appel dëkk bi màgg na màgg boo xam bi de école bi sax mënatul jël doomu dëkk bi yëpp da gis sànq maa waxtaan ak directeur bi mu ne ma benn classe day am ay plus de cent élèves xam foofu condition yi déjà baaxul léegi ñun nag bi ñu demee ba xam nañu dañu nekk dëkk bu mag te mu ñu xaar lépp ci état moo tax ñun ñu nekk ay ndaw ñu ak mag ñi takkatoo booloo boole suñu yëf tabaxal suñu bopp lu bari loolu noonu tey moo ñu permettre ñu dem ba samp mbir mu toll nii te lii en général Sénégal foo ko mës a gis rek état moo ko fa def. hôpital bi hôpital bi ñu tabax nii suñu valeur de 60 million ñun xaaruñu état ci lenn dañu commencé nag mais nag n'empêche aussi nag ñi ngi ñi ngi laaj ndimbal comme que état bu ñu déggee moo ñoo dimbali ci équipement ak personnel soignant liggéey bi sori na parce que moment bi voilà ñu ngi ci carrelage yi quoi donc voilà peinture comme euh, ni nga ko waxee moment bi mën naa ne la ñu ngi ci cëppaandaw li donc mën naa ne balaa mi ma temps bu gàtt dinañ pare te bu ñu paree incha allah rabi dañu bëgg a démarrer suñu activité te loolu nag pour mu possible faaw ñu am ay ndimbal a ah, fu mën a jóge nag ñu moom tàllal suñ loxo.